mercredi 2 juin 2021 bokkee xarit yi ñuy seetaan à travers Equivox TV nuyu nañ leen amati mbégte di jàkkaarloo ak yéen leen wax dal leen ak jàmm seen journal de l'arène ni lay demee à chaque fois ma ciy ànd ak nga xam ne moo di Serigne Babacar Babacar nuyu naa la. maa ngi yaa ngi noos. sant bu baax. waaw maa ngi sant ay ca nuyu téléspectateurs yi. maa ngi nuyu ñuy suivre ci Equivox TV yëpp di leen mhm. ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom. te mhm. leen fu ñu nekk rek. Mhm, am solo voilà bu baax ñu dem seetaani revue bi daal di dellusiwaat asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah mercredi 2 juin 2021 dañuy wax ci yëglikaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko yëglikaay bi di suñu làmb nag tey xëtamu njëkk fa mu ca xëy fesal wala la mu ca xëy fesal bokk na ci lu nga xam ne daal soo bëggee dégg-dégg moom maanaam nit ñi doon nañ ko xaar rawatina ña nga xam ne làmb la ñuy dund te Gaston Mbengue nag andil leen ko maanaam yokkal leen ko ci la nga xam ne ni joxoon na leen ko Balla Gaye numéro 2 nag digganteem ak Eumeu Sène bañ doon wax ne dootul am wala mënatul a am Gaston Mbengue fexe na ba mu amaat joxaat na Eumeu ak joxaat na Eumeu ka nga xam ne moo di Balla kon Balla fi mu nekk nii boo bëggee dégg moom mu ngi ci ñeenti contrat ñoo déet na Gaston Mbengue dolli ca beneen combat boo xam tamit ñu ngi ko doon xaar muy Eumeu seen moom ba tey mu jël ñaareel contrat mu fas ko ak boole ak nga xam ne moo di Bombardier mel ni ki nag boo bëggee dégg-dëgg moom yëglikaay bi moo tax mu ne Gaston daal décroché na rêve ba la nga xam ne nii mooy ramasse ba nga xam ne mooy ramasse maanaam gént ga maanaam daal la gars yi doon gént di ko rêvé ci ay combat moom la leen Gaston Mbengue indil sunu làmb xëy tey wax nu lu mel ni ki noonu ba tey bu nu continuer ci yëglikaay bi combat boo xam ne tamit war na am war dox ci diggante Fra ak ka nga xam ne moo di Tyson numéro 2 le 19 juin yëglikaay bi daal lam nu xëy xamal wala comme xëy daal mu cay wax mooy Boy Thiam Boy Thiam moom nee na boo bëggee dégg-dégg diggante Fra ak ka nga xam ne ni moom moo di. Tyson numéro 2 moom à accrochage ba daal jàpp na ne maanaam moonaam bu bëggee dëgg-dëgg du ca ñàkk te ñoom ñaar ñi dina ca am coo xam ne loolu moo lay gën a arrangé moom yëglikaay bi moo xëy tey ñëw dinu wax lu mel ni ki noonu beneen combat boo xam ne ni moom ka ko tëgg fa mu ko fas yéenee defi samedi mooy fa nga xam ne moo di stade Ngalandou Diouf ba ca Tëngéej muy Ama Events diggante fils de Zallo ak ka nga xam ne ni mooy abooy comme daal maanaam moom fi mu nekk nii arène ba jàpp na moo tax daal moom la mu gis mooy na dem fa nga xam ne rek moo di ca Tëngéej tëgg fa combat boobu nga xam ne ni maanaam fa la ko jàpp mel ni ki bu nu continuer ba tey ci yëglikaay bi di sunu làmb daal boo bëggee dégg dëgg daal maanaam la nga xam ne amoon na démb daal yëglikaay bi wan nañ ko de maa ngi taxaw gaston ngi taxaw mataar ba taxaw bombardier taxaw mel ni kon foofu démb neexoon na lool père baabu tamit mu nga woon ca mbir ya yëglikaay ba moo xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni ki noonu beneen combat boo xam ne tamit nan naa yëngul lool dimanche jii nu jëm yëglikaay bi ne na soo bëggee dégg dëgg moom diggante soq ak gàmmu géey combat la boo xam ne daal ah maanaam soq daal moom risque dëgg la jël fi mu nekk nii de yëglikaay ba moo xëy tey ñëw dina wax lu mel ni ki noonu ñeneen ñoo xam ne nii moom wala keneen koo xam ne nii moom moo jiite làmb ji muy Bira Sène Bira nag moom nee na jiite CNG moom nekkul mission boo xam ne bu facile la jàpp na ne daal lu jafee-jafee-jafe la maanaam la mu laaj xaw naa metti waaye loo ci mën a dégg daal ñu ngay doxal di jéem a doxal ña nga xam ne nii moom danoo mer ba xëy wax ko ci yëglikaay bi mooy mbër ya nga xam ñoom la ñu sélectionné woon ñu doon défendre couleuru Ndakaaru gën ca Kaolack Zambala daal jàpp na ne boo bëggee dégg dëgg situation yi ñu dund maanaam loolu maanaam mu ne su ko sax di ko netli ndax boo koy netli gàcce piir ngay am ndax wàllum restauration ak dëkkuwaay lañ ca daj ak jafe-jafe yañ ca dund moom Zambala nee na boo bëggee dégg dëgg moom maanaam lu ko gën a metti ak gàcce gënu koo rëy nee lu leen dal rek loolu moo leen ko yóbbi maanaam daal jëlee leen fii yóbbu leen kaw Kaolack ñuy défendre couleuru Dakar te lenn loo xam ne war na si na leen koo jox mu di leen toppatoo ba tax ñu war a mën a tegu ci yoon ba gañe manta am moo tax mu jàpp ne loolu moom torox tànge la sa jëlee kenn koo xam ne dafa ruus wala mu jëlee ca naqaru xol ba tax ma nu mu ne drapeau de l'état moom bu ko ko kenn waxati mooy si Junior Tony itam bokk na ci équipe de Dakar bi moom daal nee na bu ko kenn waxati mbirum drapeau chef ndax la mu dund kaw Kaolack moom dootu ko dund ci équipe bu Dakar bi maanaam ci ay jafe-jafe ak dëkkuwaay bu bon ak lekk goo xam ne sax nee na da dañ ko doon soxla te dañ ko am kenn koo xam ne la mu soxla moom te bëggu ko mooy daal fa Yékini tegoon tànkam mu teg fa ay tànkam muy ibu Ndiaye Obali yëgle kaay ba moo nu ko wax record la ñuy dellu record nag bu ñu fa demee lan fay fekk mooy Gaston Mbengue rek ak la nga xam ne def na ko yëglikaay ba xëy na ñu xamal ne daal Gaston moom soo bëggee dégg dëgg maanaam daal wane na boppam bu baax a baax a baax ndax nag li gars yi daan wër di ko wër di ñaan fu muy amee fexe na ba mu am la gars yi doon am amal na ko balla ëmma ñépp noonu nañ loolu mënatu la nekk Gaston fexe na ba nekkal ko dolli ca ëmma ak bombar Bombardier moo tax ki nga xam ne ni nag moom moo di Gaston Mbengue nee na avancé en maanaam ay ama encaissé ay avance yu bëri Gaston dafa jàpp ne lu xew la modd la kon mbër mu ci gis ay avance yu bëri boo yeboo nga encaisse te def sa poche Gaston lii la gis Matar Ba moom nee na d'accord na ci lu mel ne noonu nee na daal ab sportif war nga mën a signer ay contrat yu baree baree baree mooy tax nga nekk di compétir chaque jour Bombardier moom la mu gis daal jàpp na ne lii nga xam ne am na ne na nag jamono jii ñoom bu nu bëree ñoom ba tàqale ko ci la ñuy xamee nag ñoom ñii ci seen biir ñoom kan moo ci vrai roi bi kan moo ci buur bi ndax ne na moom lu mel ni lu mu yàkkamte woon la Eumeu seen moom ne na ko loo ci mën a dégg daal nga yàkkamti koog nga bañ koo yàkkamteek ñu xam kuy vrai roi beeg yu mel ne ki noonu jàppal ne moom man ak yéen bëre piir maanaam moo fay feeñ ak xeex bu sax a sax a sax Eumeu daal loolu la gis ba tam wax na ko mel ni ki daal démb koon ca ministère des sports yëngu yëngatu woon na lool lool ak Gaston production kenn koo xam ne ni ma bëgg a yëngal la def muy Pape Thialis Faye la muy waajal ci samedi ji nag moo di ab jàkkaarloo bu war a dox ci diggante Tapha ak ka nga xam ne moo di Boy Niang yëglikaay bi nag mu ngi nu xamal ne daal mbir ma fa muy amee du fenn fudul seen TV te direct tamit lay doon kon daal ko yebu xaar diggante takka ci rib ak càppaacoli gi maanaam samedi nga xaar leen ca seen TV kenn koo xam ne tamit démb mu ngi doon def ab ci mbër yi mu tëgg ñu toll ci ñaar fukk dox ci diggante Boy Sine ak ki nga xam ne moo di Baaba Maal démb mu nekkoon direct ci Equivox mel ni ki foofa tamit ab tëkkoonte am na fa ca xale waaye Boy Sine ak Siteu bu Saalum tamit ku ci ne daal yaa ngay diggu sa moroom lu méttee méttee métt mel ni kon daal fi mu nekk nii soo bëggee dégg dëgg moom làmb ji jax na ba yegg ci lool Aïcha bu nekkoon euh, revue des titres Babacar. Mhm. tey table bi dafa gën a ala daw dafa riche waaw ah, dafa gën a riche macha allah. la. <laughs> Uh-huh. contentement la parce que yaakaar naa comme li ñuy wax rek. Mhm. Zador moom Zadoru Babacar la. moom sa Zador waaw la parce que la ñëpp wax te olof na ñëpp waxay <laughs> dëgg. waaye tamit defe naa Zadoru réew mhm. gis seen bopp. Mhm. kon gis ngeen Zador ak tey ñëw. Mm, au complet daal au complet des na sax nag des na de. Ah. <laughs> ndax Zador jàppal na am na moutarde. moutarde nga. Zador am na téye. ak a am solo. yaa dégg. am na sax couscous. Hmm. te fii macaroni nga fi gis. ak vermicelle waa kon des na leen article man nag bii laa ci gën a bëgg. macaroni bi ah, ah, ah waaw séeréer dafa bii. <laughs> moom daal laa choisir day am solo. Mhm. vermicelle de tamit ak ganaar. bii moom temps yi dina am ku ko soxla bii bii waaw bii ah. baax na si tene bii laa koy jënd. <laughs> mi ngi noonu. chaque jëndatuma sax ndax man Aziz yi la may jox may jox tene. Hmm. j'adore yi looloo neex. j'adore daal on t'adore. ngi noonu <laughs> voilà ñu daal tàmb tàmbali euh, suñu làmb lañu xëyee tey seen xët bu njëkk rek mooy diggante Balla Gaye 2 ak Eumeu Sène ñu ne déedawaay ñu ne Bombardier ak Eumeu seen muy nag combat yoo xam ne vraiment gars yi dañ ko doon xaar ki nga xam ne moo di Gaston Mbengue daal di ko décroché. waaw loolu defe naa ne mooy làmb. Mhm. defe naa na mënta ne. Mhm. maanaam ñëpp ne lii mënta ne. xadeel xaar. Mhm. làmb moom olof ko wax du biir day xëy wasil de. xam nga Eumeu Sène ak ñëpp dañ ne woon saa yi dootuñu bëri. te muy dëkk seen combat. Mm-hmm. dootuñ bëre dootuñ bëre defe naa waxoon nañ ko ba tourné passe boobu mm-hmm. waaye gis nga tey fañ mujje combat amaat na diggante Balla ak Eumeu mm-hmm. ba taxawati na ku fa jaar Gaston Mbengue Gaston Mbengue nag defe naa ne tey combat bu mu taxawal ci làmb man de Babacar du bett te defe naa du bett ñiy dund làmb xam làmb ku nekk si làmb depuis 92 ba fii ñu koy waxee nii macha allah yàlla na gën a gudd fan wér defe naa tey amatul lu ko jaaxal si làmb déedéet ci loxoom la màggee ak promoteur yi mel ni moom te mhm. moom tam bay na ca wàllam bu baax a baax kon defe naa li ñu mën a def mooy mhm. li mu def dem daal am na solo di ko ci félicité mhm. Bombardier ëma scène bi mu taxawaat tamit muy ramas am na am na solo bàll ëma bi tamit muy ramas ba tey loo am am solo la di ko ñaanal yàlla rek ah loolu moom décroché ak li mu dëgg yëpp yàlla na ko réussir parce que tamit wax dëgg yàlla mhm. ñëw Gaston si làmb moom fi nekk nii moom bu mhm. bëggee dëgg dëgg lu yokk a yokk làmb ñu koy nuyu di ko ziar di jéglu tamit si sama ñàkk a teew foofu démb wala su mhm. ñàkk foofu Equivox parce que wax dëgg yàlla yëgaloon nañ ma ko waaye mu tombee ak benn directeur bu ñu doon def fii yaakaaroon dina teel a pare far mu guddee far mu guddee ma ciy profité di waaw neex na ba noppi daal. Ah, bu ñu mu ñëw nag ci combat 19 juin bi incha allah muy diggante Franc mhm. ak ki nga xam ne moo di Tyson 2 nee na daal Franc li mu war a mu war li mu war a wut ci digganteem ak Tyson mooy ak crossage bi maanaam. daal waaw jàppante naa ni muy bëre mhm. mu bëre mbëru bëre simple na ko nangu jéem a chercher bëre waaye est ce que ki muy bëreel est ce Franc ko dàq bëre foofu tamit dañ fa war a taxaw mhm. parce que Tyson 2 bëri na li simple bu ta ba taayee taayee taay na mhm. ci keppaaru Eumeu Sène mhm. nekk itam mbër bu mën a xeex kon nag moo lay war ne lamb jooj daal ak lu ci sa waay di serse ji moom mhm. na nga pare rek waaw <laughs> ah, pare nga pare ba nga serse na fekk nga pare ci ah. bëri mais keneen ku ci la ngay def te ñorul ah bu keroogee waaye mën naa am sa côté yóbbu mën maata sa loxo wicca ko nii <laughs> noonu ñoom ñaari mbir yëpp ku ci ne la nga pare te naa ne pare nañ pare nañ sax nag ki nga xam ne moo di Bira moom nag il se confie nee na diriger le CNG n'est pas une mission facile nee yombul daal. waaw làmb kay ku bëgg a diriger. bopp làmb rek ni mu <laughs> méttee làmb ci boppam. Euh, diriger benn structure ci làmb rek daa métti. Mhm. waxatuma laa làmb ci boppam yëpp. pour réew nga bëgg ko mhm. gérer. Mhm. ku ne xam ne du lu yomb waaye ñu ngi ko ñaanal yàlla mission boobu yàlla na ko ko yàlla yombalal moom Bira mu ne Aboy fils de Zallo ce samedi Ama Evans migre à. Galandou Diouf. waaw kon stade Galandou Diouf ba ca Tëngéej la koy yóbbu ci samedi ji. Mhm. parce que ku ne xam ne samedi fii Dakar. waaw lamb daf fi am ak euh, ku nga xam ne mooy Ndandi Fall ak Dame Sène. waaw kële ñuy wax euh, Habib Lecran. tëgg mhm. boobu combat kon xam naa loolu moo tax. Mhm. Ama Events dem Tëngéej waaye loolu tamit am na solo parce que décentralisé la. muy lu am am solo mu tëgg ñaari xale yoo xam ne ay jeunes espoir lañ muy fils de Sallou ak Aboy. Euh, drapeau chef de l'État 2021 préparation bi hébergement bi ak restauration bi ñi nga xam ne ñoo di euh, lutteurs yi daal dafa mel ni dañ cee mer yu Dakar yi léegi tëdd Dakar en fait. waaw équipe bu Dakar daal. Mhm. waaw ah loolu day ñu ngi dégg coow li fi mu nekk nii coow li moom mu ngi mel tuleeg mali ci dëkk bi. waaw ni ñu leen gérer ci seen hébergement. Mhm. seen transport. seen restauration ak loolu mhm. ba tax nag kon nag loolu xëy bu ñàkkee ak ni ko mbër yi waxe mhm. ak ni ñu koy déggee bu ñàkk amee ñu ñàkk drapeau boo xam ne ñoo ko mujjoon jël kon defe naa ne loolu kon defe naa kon ah am na lu manqué lu bare bare bare bare mhm. li ci am nag mooy bon dañ leen a dénkoon ay nit muy njuga ja comme entraîneur am na nag ñoom Omez ak ku mel ni ñoom Mamles ñoom ñoo yoroon équipe bi bi yoon parce que boo xoolee ay wax amoon na balaa ñoo dem parce que bi ñu wàccee Ibra Mbaye Ibra Mbaye amoon na lu ba génn wax parce que moom dafa yoroon équipe de Dakar ay at diw drapeau résultat mu koy tëb mu jël moo ko mujjoon jël mm. ni ñu ko wàccee nag xam naa bett na ko mu naqari ko mm-hmm. ba mu waxoon xaw ma nag ñi ñu jël bi ñu leen di jël ci ban contexte lañ leen jëlee mm-hmm. ndax dañoo def li nga xam ne foofu la ñu war a jaarale entraîneur ba mu jaar fa ñu war ko jël dénk lu toll équipe de raison ñu def ko mm-hmm. wala déet loolu nag ñoom ñi ko def ñoo xam bu fekkente ne nag dañ jaar def loo xam ne bokkut ak war a am résultat baa ngi nii maanaam nit moom mhm. lépp looy def lu mu mën a doon da nga koy teg ci siraatal mustaqim boo bëggee bu juree ëllëg amal la njariñ mhm. xaw nag fa ko teg xaw ma teguñu ko fa xaw lu xew waaye mbëri nag ñoom ñoo wax te mbëri ni ñu waxee boo leen déggee mhm. da ngay xam ne kon ñii ndax Zambala wax na Tony Junior wax na Zambala am na lu ko naqari lool Tony bëggatul sa dégg mbirum drapeau kon ça veut dire kon nañu leen maanaam nañu demee ñoom mhm. demuñu ci condition bi tax ñu nekk ci les meilleures conditions pour mën a gagner dara mhm. parce que nag muy Zambala mi muy Zambala gis nañ ko fi mu finaalu ay tournoi ren gagné ko mhm. Tony mi gis nañ ko mën a bëree lool mais ba xoolee Dakar podium bi sax bokku ci kon nag encore une fois ñi yore làmb ji ci région de Dakar di ko diriger nañu xoolaat bu baax a baax li ñuy def Ibrahima ñun défendre ñu ko ah parce que li tax duñ ko défendre ñun defa newuñu lew nekk luñ fi kenn mais li am daal topp na ko ay at di ko wut ba mujje ko gañe mhm. kon nag xawma yan raison tax ñu dàq ko ah ñoom ñoo ko xam ñoom ñi ko dàq mhm. ñi jël ñi jël tamit xëy na ñoom ñoo xam raison yu tax ñu jël leen kon daal ami mhm. xamalu ci amam ñoom ñi def ak ñi nga xam ne ñoom ñooy kii daal ñoom ñi leen yóbbu woon ñoom ñoo mën a génn tey éclaircir leeral waa Dakar li tax ñu ñàkk ak contexte bi ñu ñàkkee mhm. ak li mbër yi di jooytu ba wax ko mhm. waaye xam naa daal lu mu mën a doon la ma la waxoon rek ci dëgg maanaam moo si nekk mhm. mbir mu mën a doon rek soo bëggee mu avancer résultat positif am ci ëllëg lu mu yàgg-yàgg teg ko ci siraatal mustaqim mooy yoonu njub bi suñu borom santaane teg ko ci tamit et puis tam maanaam looy def teg ko bu mën la teg ko si yoon ça veut dire amul gën a lante ku ci ne la mu moom jox ko yaa ngi dégg waaye yaa ma neex fu mu am rek. Mhm. yàqu yàqu dafay daal di indi maanaam dafay dugg. Mhm. xaw ma nag du leen ñàkkaloo xaw ma hébergement ba nu mu demee parce que nekkuma foon waaye mbëree wax nañu kon ñoom ñi leen yóbbu woon xam nañ. Mhm. am na solo ñu euh, daal di jàll record yooyu la xibaar suñu làmb fa ko fësaloon. ñu dellusiwaat ñoom ci li nga xam ne moo di euh, li Gaston Mbengue def nee na impossible n'est pas Gaston Mbengue le Don King de l'arène vient de réaliser l'impensable waaw mooy li ma la sànq rek mhm. maanaam impossible ci wàllum làmb ci Gaston. n'est <laughs> pas Gaston <laughs> loolu moom c'est vrai moom mhm. que tamit euh, ku yàgg ci njaw di njaw te def yàgg macha allah yàlla na ci mhm. gën a yàgg amul lu ko te tey ci làmb que defe naa bi muy def kalafu 2006 bi ñun ñëpp fi lañ nekkoon boobu ñu bëri dañ ne woon lii est-ce na ne mu fexe ba dajalee ñoo xam ne ay espoir lañu jox leen ay kase yu seer ay vingt millions ah bëriloo leen defe naa loolu ku ko defoon nga nekk ci làmb ah vraiment daal kon liñ ko ñaanal rek. amiin comme sànq rek. Mhm. yàlla na réussir lii daal. amiin mhm. euh, Boy Niang 2 et Tapha Tine en direct sur la Sen TV sa samedi maanaam signature contrat bi la wala. jàkkaarloo jàkkaarloo bu nar a loolu am na solo. Mhm. defe naa ne loolu tamit sénégalais yaa doon xaar combat ba kañ lay am. léegi nag defe naa ah, reef ba tamit dikk na léegi nekk dëgg nag. parce li tax mooy combat ba. Euh, leer na léegi ku ne xam ne ni mois d'août lay am mhm. Pape Thialis Faye ko tëgg ñuy def seen jàkkaarloo bu njëkk ginnaaw ba combat ba leeree nañ ci mhm. bopp sénégalais yi ci lu koy seen TV ya samedi yi nu jëm mhm. ñu ñaan yàlla tamit Pape Thialis moomu ah yàlla na ko yàlla dimbali ba mu réussir bésam boobu parce que tamit wax yàlla jàmbaar la lool lool par rapport ak tey bi mu ñëwee ci làmb doonte metti na waaye tëréwul góorgóorlu na insisté na ba des ci ba am tey yoo xam ne mu ngi koy jéem a def. Mhm. defe naa combat bi itam. pour nga gis combat bu ko dàq ren ci saison bi dana jafe loolu muy Tapha Tine ak Boy Niang. Mhm. am na solo xibaar yi jaar fa ndar keppe. yaa ngi waajal G5 bi ah? G5 incha lañ ci àndalaat waaw ja ah waaw G5 ba. Zalor ak moom moo gën a wóor. indi ma moutarde bi nag soxla naa ko. non moutarde bi dina ñëw day des fois dañuy ci waan bi capp ay affaire. waaw moutarde bi day ñëw. warga bi day ñëw parce que bu ñu añee bi par dañuy soxla warga bu set bu. bu bu léger bu oyof. mi ngi noonu Zalor rek nga ko mën a amee. mu bi tamit sa. naan ba pare di géex waaw. Ah? Mhm. yooyu yëpp am na. Mhm. day ñëwaat. Ah. <laughs> ak Zador moom. xaaral lu nekk ci <laughs> Zador lépp ko a am waxuma sax ay alimentation bi si dama ko ah. sax booyee boo di ko xaar. air Zador laa <laughs> looloo foor xam ne avion buy xel di naaw ci jaw ji. looloo foor di dikk ki ñëw parce ma xalaat loolu. Mhm. ki koy ki ki ci bopp bi di ko doxal. jeune la sénégalais la bu am ambition. bu yàgg yëngutu. te itam xëyu xëy rek Zador wuyu si ko. dafa yàgg di xoslu. tey ku yàgg ci njaw di njaw maa ngi la ko doon wax léegi mhm. Aziz Ndiaye vraiment yàgg na ci dëkk bi di dóor waar lakkati nga olof ne ko yàgg ci njaw di njaw ah, waaw bien sûr moo tax ma la kon boo gisee ëllëg air Zador sax mm-hmm. bu mu la jaaxal bu mu la jaaxal voilà mi ngi noonu te lépp mën a ne mm-hmm. kon di ñaanal ñëpp jàmm di bég si di nuyu ci ñi nga xam ne ku nga mel ni Omar Tawa maa ngi koy mm-hmm. bégee borom marché asalem tamit ki nga xam ne moom mooy Babacar bu Modou la mu depuis marché Petersen gis nga moom itam sama verre bi bu baax verre militaire bi moom la ci kaw ba Babacar bu mu la ma yàlla na jàmm yàgg <laughs> avec Zador. Hmm, tout est possible mi ngi noonu fi la daal di yem ak yéen tey ci xibaaru journal de l'arène leen jox dig daje ëllëg incha allah waaye nag fii ak ay fan yu néew dina am nouvelle bu deex ma leen indil ci kanam tuuti rek jërë ngeen jëf.